dani sama waay da jamiñal jaara busuk wala ma sebi jaara jurujub macha allah euh, mais gis nañ ne Mame Ndiaye Savon dafa génn def ay vidéo taf sa photo audio bi nga wax yëpp ci moom seet li nga gis ci moom nga wax ko te noonu la demee mu jël oto boobu nga xam ne oto brousse bi dem maye ko jënd beneen oto te yow yaa waxoon ne ki ñuy wax maam jaata boo xaw ma ko xamaanu ma ko mais oto bii na ko sens jigu ko mu gis loolu yëpp ci moom ba ne nag sëriñ bii mooy sëriñ bi te digg nañ maam jaata boo lan la. Euh, Idaali. Mhm. damay wax ne wallaahi laasim. maam mhm. jaay safon xaw ma ko. Allah ni ko ñëpp xamee laa ko gisee rek parce que ah! internet lañ nekk man damay suivre internet waaye dafa am ñu ma interpellé man sax baaxoo mooy tudd tur information lu baax laa wax ci moom rek moo tax ma ñemee tudd turam mhm. man na maa junj waaye maam Ndiaye Savon dañoo bokk sëñ Tuubaa muy taalibe sëñ sëriñ Saliou mhm. mhm. maam Ndiaye Savon bi bi ma nit ñi waxee loolu ma xool wallaahi la xasi ma xamoon sax autoroute la yor dañ ma ko génne wax ma ko ba ma ko xoolaane autoroute bi baaxul ci moom ci jël bu blanc. Mhm. wala oto bi sax mu peinture ko. Mhm, def ko noonu sax amuloo ci ndox ndox yooyu yëpp. bi nag la ma ay nit yónnee vidéo yi mu wax ci man ak di seede loolu dëgg man dama rata di seet. Mhm. ni ma ko defee ci Mame Ndiaye Savon noonu laa ko mën a defee ci kilifa réew mi di Macky Sall. wallaahi ni laa ko mën a defee ci Mariam Faye Sall. parce que man sama seet bàyyiwul dara. wallaahi nan lay doomu aadama rek dafa nekk koo xam jigéen ju jàmbaar la ju nangoo góorgóorlu jëlee bu Sénégal baaxoon Marème Faye Sall daf koy woo comme jigéen la ci moom encadré ko ko laaj ko lu mu bëgg recevoir laaj ko lépp lu mu bëgg moom Marème Faye Sall na recevoir Mame Ndiaye Savon mm-hmm. teg ko ci yoon gën koo jàppale ba mu yaatal liggéeyam mm-hmm. damay wax ne fii ci Sénégal ma ci gis mm-hmm. Mame Ndiaye Savon amu ci morom amu ci dafa am beneen polémique bu mu boo xam ni moo ko créé ginnaaw bu mu indee xam nga nit ki Mame Ndiaye Savon yàgg naa liggéey niñ ma waxee histoire yàgg naa liggéey waaye ba muy door di metti muy ñafee di ko woon léegi lu sotti am borom nag. Mhm. te doom bu baaxee ñëpp bokkoo jur. boo bonee sa yaay rek lay dese. da ngay fay daw. Mame mhm. Ndiaye Savon tey damay tàllal loxo na mhm. ko ñu dooleel ko moom sax yàlla suturaal na ko bëggul xaalis waaye dañ koy dooleel. gën koo may doole ba fépp bagage nekk ci àdduna bi mu mën faa teg tànkam jëli ko indil ko doomi Sénégal ndax liggéey pour boppam ay waajuram ak Sénégal gépp ko tax di liggéey waaye dama wax ci moom nag lu àdduna bépp teg moo tax ruus bi li nga wax rek moom rek la lay wax ñëwaat ci Mame Ndiaye Savon ba léegi lan moo tax nga seet gis euh, Mame Ndiaye Savon am audace bu toog ci télé bi ne Mame Ndiaye Savon oto bu ko na ko changé na ko dal am fit da nga xam ne rek automatiquement li moo am ku ñemee am nga de Mame Ndiaye Savon ku ko xam Mame Ndiaye Savon ngay engagé xam ne Mame Ndiaye Savon aw laa mi ne moom demul ci gémmiñ waaw am na am na li ëpp solo mooy mën naa wax am na jumtuwaay bu mu waxee ah. am na ñu ko waxal dëgg te am na doole wax li may wax ci moom bu fekkoon lu koy gaane amul bu ko neexee ma yóbbu ma bëris ñu tëj ma ci kaso bi ah, waaw damaa seet toog seet ay mbiram gis ko ñu ma néeg néeg nii amoon na ay sarax sax waaye saraxu jàmbur mhm. du ma ko weer ci internet bi allahu akbar pourtant am na sarax de kon moom mën na la ne mën na la ko yi wallaahi mi ni ma ko waxee ci oto bi ni laa la ko mën a waxee viom ak li jëm ci kanam ak lépp ma yaakaar sëñ bi yow li nga wax garaaw na de man du ma fen ba ma juddoo ba léegi xaw ma fu ñuy fen sa du ma ko def xalaat ma sëriñ Tuubaa bi maam Njaay Safon ni ma ko waxee otom bi pour mu sensé ko ni laa ko mën a waxee ay sarax yu mën a def ngir gën a jëm kanam maa Njaay Safon tëj dëgg nga naan la maa la ko wax xoolal bi la nekk a Njaay Safon day xaar de tey la ñaata fan ci weeru tubaab ko la ñaari ci ban weer mois de bañ nekk yow ah juillet lañ nekk tey la 24 juillet waaw 2023 waaw na nga xool balaa féeg le 24 bi di ñëw chiffre bu garaw lañ tombeel tey dañu gis maam Ndiaye Savon xéwal yu bari ah, wallaahi non damaa gis ñu jigéen ma bëgg koo jàppale ci ñaan man kurus lu ne am naa ko ci te maam Ndiaye Savon xaw ma maa jox lu ma amul ëppalewu ma dara ci lu nit di ah, suñ masha Allah waaye boo gisee nit muy góorgóor xam nga Sénégal lañu gis nit muy góorgóor ñu koy xas di ko yàq man nag bokku ma ci ñooñu damay ñëw fekk la nga néew doole wala ngay nekk ci yoon ma puus la nga dem lu ma mën a kus néew waaye di nga gis ci moom am jaay sama tàmbaleegu daal a tey euh, gis na def na benn vidéo euh, wax ci yow taf sa photo andiwaat li nga xam ne mhm. xam nga bi ma defee interview bi wax ci Mame Ndiaye Savon matul vingt quatre heures Mhm. sama téléphone damaa mujj fay ko redémarrer parce que audio vidéo yi Mame Ndiaye Sakho kii woon ñu nekk Europe ak ñu nekk Suisse ñëpp dañu jël audio bi dama ko envoyé waat ni ma am nga fit boo waxoon erreur man koo teg ci xam-xam mhm. bi may wax Mame Ndiaye Sakho mhm. koo teg ci xam bu leer moo ma ñëwee audience wax ci moom bi ma gisee audio yi nag xaw na ma kii tuuti parce que bu fekkoon du dëgg dina démentir neneen waaye nag alhamdulilah ba ba ma demee bay wax mhm. damaa xam ne lii may wax dëgg la te lu ma ci fekk baax na ma engagé ko mais ba léegi nii boobu vidéo bi léegi Mame Ndiaye woogu la téléphone waaw Mame Ndiaye Savon nag xam naa ñu bari ñu naan complot naan dafa xam sëriñ bi wallahi xam si Mame Ndiaye Savon xamuma xawuma ko moom wax na ko sax ci vidéo yi waaw wax li mu wax noonu lu wér la nee na sa numéro mhm. xamul fi nga dëkk mhm. mosul la gis ah mosul leen dégg téléphone waaw loolu dëgg la daanaka bi ma bi vidéo bi génnee ba tey site internet yu bëree bëri ñu ngi may woo bëgg maa dalal waaye yow dañoo bokk suñu Saliou man a Idaly mhm. yow da ngay Idaly mu Wally Seck di mhm. Idaly mu Serigne Saliou ñu bokk suñu Saliou man ak yow mhm. te bu ma demee ba ñi may wax ci micro yaa ma njëkk a dëkk micro ñi may loo ma te laajoo ma dërëm loolu gën a yéeme yaay ñëw ci man ne man Ndiaye Savon la ñëw waxal ci man Ndiaye Savon ma boo la tey ngeen a dégg dëgg la man Ndiaye Savon nag li wax dëgg la xamuma xamul fu ma juddoo xamul fu ma dëkk xamul sama tur bi mu wax tudd sama tur dana sëriñ bi rek maam Ndiaye sax ma wax xamuma ko xamuma bi mu déggee vidéo ba tey nag woowuma téléphone dégguma ko ko jege astafurlah am na ñu ma xam ñu ko xaw a jege ñu may woo di wax waaye comme mbirum jàmm du ma ca nangoo yaatal ndax affaire téléphone dafa doy waar espionnage dafa bari man nag kenn mënu ma espionné ñor waaw waaw damaa ñor ma espionné ku ma woo whatsapp laay waxee yow boo jubut la demal ci àll ba mhm. waaye sa fon rek bi vidéo bi génnee ba tey woo ko xam naa dafa bëgg na ko mhm. man xam naa ko baax a baax a baax da wax ci nit mhm. liggéeyam lay wax rek yem ci mais bu nee sëriñ bii rek xam naa ne bëgg na sa xarit laay wax bisu ngoone def euh, benn organisation da euh, yoo xam ne deux heures ñoo doon feetee mu boole ci ay nit maam Ndiaye Savon ak ñeneen ak ñeneen ak ndikku benn fête jox kenn ku ne un million pour seen euh, yokk seen liggéey hmm. geste boobu lan ko gisee. xam nga man nit noo mën a mel noo mën a mel ci àdduna Idda Ly. mais bisu ngoone dañ koy taak gars dañ koy taak la rek. te moom foofu laay ñëw noo mën a mel boo bëggee sama yaakaar gi Serigne Saliou rek. Oh! gisatuma sa sikk loolu laa ko bëgg nag bisu ngoone loolu laa ko bëgg bi ñoo mën a mel ci àdduna laa wax boo bëggee Serigne Salifou Mbacké est-ce que gisuma sa sikk Serigne Salifou nga xool ci ñoo bokk Serigne Salifou bii su ngoone borom got ak mbuur kenn ci àdduna gënu ko bëgg Serigne Salifou te bi ma xamee ne bii su ngoone saar def Serigne Salifou la mhm. laa ko bëgg man te nag maa xam nga ne bii su ngoone trois bi yu la ñuy wax suuf ku mën a muñ la est-ce que xam nga ne góor ñu bari ñuy takk tubay di takk caayaka ngeen boo ko bëri li li bii su ngoone mën a muñ ci àdduna ci lu metti wallahi war quraan nga xam mënuñu koo muñ li ngay jege bii su ngoone rek xamal loolu moom ci loolu moom ci tay sa nga wut saafara de te tontu man li ma gën a neexal. man ñaar laa remarqué ne moo ko sofee ñaar muy mën a muñ ak am yërmaande mën a dimbali doomu aadama. Ah, waaw yi moom bu fekkee bisu ngóor mi ngi may dégg xam na ne moo ko sofee. Mm-hmm. man mosuma koo gis mosuma toog ak moom. toroxlu kenn am naa sa liggéey mooy laaj ñoo xam ni boo fayee di nga xam nga ne bisu ni mel ci télé bi ak na këram bokkul soo ko fekkoon këram da nga yaakaar soxna jaara bu so moo toog wala nga yaakaar soxna faat jaxate moo toog mm. ndax baax ak lam làmbool ci biir kër mi jàng kase di jàng alxuraan bëgg sëriñ Saliou Mbaye nag moo jiitoo ci kanam mhm. faaw ñu wax la dara mhm. waaye moom coow mooy doxal mbiram dafa am ñoo xam ni mhm. coow dafa mel ne nga teg benn fourne teg ci ay xal di upp gis nga mooy doxal mbiram bu mu ragal coow gis ñu gis ne ba temps yee euh, Abou Touba la di ko xas ba xas li nga xam ne moo di sëy mi tàggoo sax sëy nga fi quatre fois est que loolu tey euh, nan nga ci gis waaw xasante moom suñ Touba daa wax ni xasante nit ñi dàq ngañante dàq xasante ñoo ñu gën a yées ci doomu aadama yi comme xasante gi xaw Sénégal nañ ko bàyyi nit ki bu la invité nga am erreur waa néexu la jógal dem man boo ma invité woon fii di ma wax loo xam ne néexuma dama naan ñokket soo sama daal dem ñibbi sama kër ñaar dañu dégg waaye toog nga ba émission bi jeex am ay weer après polémique bi ñëw ngay commentaire di xasante di saagante baaxul plateau bu ñu fa invité boo ragalee bul dem boo amul xam-xam bul dem mhm. man de mosuma faa waaye boo fa demoon mhm.

da nga gis plateau bu bees gis matériel yu bees gis yeneen innovation yu bees gis yokkute gu bees taq te biisu ngoone wax naa ma sàcc wax la El Hadj Ndiaye dina ko dooleel maa xam nga ne biisu tuuti ci kanam mi ngi ci tànki am télé télé boppam biisu ngoone wallaahi ma jox ko révélation boobu mi ngi ci ay am naa sax bëggul maa ngi jéggul waaye mi ngi ci ay programme yoo xam ne maanaam mbiram du ëmb day day xëy rek wasin waaw comme du koo xam ni yëfam dañ koy waaj naan aw na fii mi ngi programme dañuy xëy rek yëkkati mbiram ñu biisu man moom lii mais sëyam yi nga xam ne moom mooy tas sëy te tas tas yu bari yi waaw sëñ Tuubaa daa waxoon ci jigéen ni soxna nag ñett la dafa am koo xam ne yow rek yaa ko yor ba keroog ngay faat wala mu am koo xam sa morom jël kii faatu wala nga njëkk ko faatu mm-hmm. du dara xam nga lan moo bon moom dégg naa ko mu ni fu ma dem sëy dama faa sëy ngir yàlla ak farataam ko yóbbu waaye ñii nañu bala wax sëy nañu wax ci ñiy wër di njaalo ñaata jigéen nga xam ñu xëy na taxawaalu di jaay seen bopp biis ngooñ lu ci maanaam bu sëyoon téeméeri jigéen araamul foo sëy moom boo ree ba gisatoo fa loo bëgg ànd dagan na waaye tàggoo dagan na sëy yum tas yëpp loolu dara destin la dafa am loo xam ne bu ko suñu borom bindee ci yow ñaan mënu koo fànq sarax mënu koo dindi dara mënu koo dindi force da ngay sëy ku suñu borom tudd ni kii sa jëkkale doon rek di ngeen di ngeen ànd yéen ñaar donte benn waxtu la sëy yooyu moom dara nit ku ne am na sa problème xam loo def rek ñu ko waaye